kun fay mbokk yi ñuy jàkkaar lool asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di jiital ci nuyoo ak ziara alxalifatul am li taifatil muridiya sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mi tooge jotaayu xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba. ñu koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool Mbacke te may ko wér ba yéen yi maam ci liggéeyal Cheikh Xadim lépp mu matale ko tànn ko mbooleem taalibe yi di ñaanal sëriñ Cheikh Khady Mbacke sunu borom yàlla yokki leeram te taasuñ ci barkeem di ñaanal sëriñ Abbas mi toogee jotaayu Cheikh Ibrahima Fati boroom Daarul Muxti mu yàgg fi lool Mbacke te wér ak mboolem njabootug Cheikhul Khadim mbokk yi tedd ñu jàkkaar lool ñu fas yéene leen dikkee xew-xew bu mag di bis bi nga xam ni moom la rajo Daarul Muxti FM doon àndandoo di ko taxawal te mooy fukki at ginnaaw bi rajo bi émettre ci dëkk bu sell bi di Daarul Muxti ci atum 2005 ba 2015 xew-xew bu mag bi nag mu dëpp woon ak dimanche le 13 décembre 2015 ñu doon ko amale si Daarul Moxti àndoon ko ak mbooleem kilifa dini ak kilifa aada yi àndoon ko xarit yi ak soppe yi wala rek am di jàmmi dëkkandoo yi ak mbooleem soppe yi Daarul Moxti FM yépp foo ñu mën a nekk ci arrondissement bu Daarul Moxti yi ñoom ñëpp ñëwoon nañ ànd ak personnelu Daaru Muxti FM ci bis bi ni ngeen koy gisee ci image yi bi ñu xëyee nag amal nañu njàngum alxuraanul karim kàddu sunu borom subhaanahu wa taala ak njàngum xasida magi bayti noonu ngeen leen séene ci image yi ci teewaayu kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñooy saytu liggéey bi di El Hadji Moustapha Ndiaye sëriñ Serigne Mbaye Guèye Sidi ko ak borom Daaru Muxti ak El Hadji Daouda njaay mi yore lépp jëm ci wàllu programme bi ak Serigne Chambou jot mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu commercial bi moo koy saytu ak mboolem personnel Darou Mouhty FM yëpp techniciens yi animateurs yi ak soppe yi ñoom ñëpp àndandoo ngir màggal bis bi. ki leen féete ci wàllu caméra bi di seen mbokkum taalibe seen xarit basiiru Silla Xaira production ki nekk ci wàllu micro bi seen mbokk seen xarit Papa Lassane kon xew-xew bu mag boobu nag moom lañu ñu fas yéene ànd ak yéen dégte leen la nga xam ni xewoon na fa. ay waxtaan yu wute am na fa ay soppe yu jóge ci gox yi fasantikoo sekk nañu ak ñoom ay jotaay waaye jotaay yooyu nag moom lañ leen fas yéene dégtal ñuy déglu ak yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di delloo njukkal xaadimu rasul di ñaanal seen cheikh xadi di ñaanal itam Serigne Cheikh Sidi Muxtaar suñu borom yàggal ko suñu kanam loolu te mu ànd ko wér ñaanal Serigne Cheikh Khady suñu borom yàggal ko suñu kanam loolu te mu ànd ko wér ak mboolem njabootu borom Daaru Muxti gépp di am mbégte lool ci ne noo ko doon woote ba léegi tey jii nag nu egsi ci muy bis ci la rajo bi am fukki at rajo bi ñu ngi ko fi ubbi woon <clears throat> ñetti fan njëkk màggalu Touba 2005 bi ñu nga xamante ni ñëw nañ ci ñetti fan njëkk màggalu Touba 2015 muy fukki at ñu xam ne diggante boobu xat na ñu ne nan jàpp bis bi def ko muy bis boobu dañ ci fàttaliku sant ci delloo ci njukkal Serigne Touba delloo ci njukkal borom Daaru Muxti muy fukki at yoo xamante ni moom la rajo bi feete ñu tànnoon fukki kilifa tam jagale leen euh, euh, fukki at yooyu kilifa yooyu mën nañ caa ràññee Serigne Cheikh Atou Faye Mbacke mën nañ caa ràññee Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khoudous ak ñeneen ñoo xamante ni incha allahu taala da Serigne Mame Thierno Mbacke Darul Manaan ak euh, Serigne Bassirou Mbacke Karathil ak ak Serigne Bassirou Abdou Khoudous ak kilifa yi nga xam ñoom ñëpp incha allahu taala daañu ko lim ñu dégg ko ñun ñëpp. Euh, noonu lañ ko wootee woon waaye bi ñu wootee itam mbokk yee xarit yeeg wëlër yi ñëpp teew nañ fi ku fi ñëw incha allahu taala gis nga mbooloo maa ngi bari lool jóge ci barab yu fasanti ko euh, sëñ bu Diop dana ko lim léegi ci kanam incha allahu taala waaye bala may ñëw waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo jote ñëwoon délégation bi fi egsi dana leen dana leen dana leen rappel ñu dégg ko ñi ñi ci des itam ñi ngi leen di xaar ngir ñu ñëw waaye bala ñuy ñëw ci kàddu yi rek dañuy jox jëwriñ ji El Hadji Mouhamadou Moustapha Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite bi di Euh, doom ci Serigne mbay Ndiaye Thiel kenn ku ne xam sëñ Mbaye Ndiaye Thiel taxawaayam ci biir kër borom Darou Mouhty taxawaayam ci kër sëñ Mouhamadou Xaballa taxawaayam ci kër Cheikh Moustapha Absal Karim bari na lu ñu gënoon a ràññi ci bisub tabaski muy xarum tabaski sëñ mbay Ndiaye Thiel am xarum tabaskiyam àddina sëpp ràññee woon na ko ci melokaan waxam ne mel na ko te loolee ba tey jii ñoo ngi ko saxal fii ci kër gi yàlla na yàgg lool te ànd ko wér rajo bi itam jaar na ci ay loxo yu bari góor a saar yor bi mu fi jógee itam sëñ Baye Guèye Syll yor na ko tey jii sëñ Moustapha Ndiaye ñëw di ñetteel ki nga xam ne moom moo ko yor fii nu toll itam ñetti at bi mu ko yoreeg léegi mooy ñetteelu ki ko jiite ñetteelu at bi mu ko yoreeg léegi waaye wax dëgg yàlla ñetti at yi wecc na fukki at yi wees yëpp ci liggéey ci développement ci doxalin ci taaral ci yaatal loolu ñiy sedd ñëpp xam nañ ko tey it yàlla ak yonent bi Sëñ Tuubaa tax ñu di ko kon Sëñ Musaa dañuy ñaan yàlla yàggal la te la kon dañ lay jox rek kalimatul iftitaax nga ubbil ñu ñu soog a ñëw ci yi nga xam ne mooy kàddu sant bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbin walah xabla kulli cheyin nuraxib duyufana al ajilla alladina jaau min amakina shatta wa naqulu lakum marxaban bikum ahlan wa sahlan ونخصص حاسه الترحيب دائرة جحتي وتول سلا وسام يبل وكل من ساهم في هذه المناسبة الخيمة ونشكر الله تعالى على هذه الوفد الكريم هذه الوفد الأخوة هذه الوفد الأجلة هذه الوفد الكريمة wa naqulu lakum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp di leen wax dal leen jàmm ci bis bi nga xam ne mébatoon nañ ko yàlla suñu borom may ñu ñu agsi ci ak jàmm ñu leen di wax dal leen jàmm di sant mbokk yi nga xam ne ñoo jóge njaxate tol si la saam yebal ak dëkk yi ko wër yëpp dikk dikkin bu rafet nekk délégation boo xam ne délégation bu am solo la ba tax na li dafa kawe njort lool ndax li day wane ne ñoom ci lañ bokk ndax itam ni ñu dikkee rek ku ko gis xam ne am nañ yëg-yëg am nañ bàyyi xel goo xam ne bàyyi nañ ko xel mbir mi le loolu nag ñun dañ leen a yoreel bor boo xam ne mënuñu leen koo fay da ngeen ñoo lebal loo xam ne incha allahu danañ ko jéem a fay xam nañ ne lebal ngeen ñu waaye ñun itam danañ jéem a fay kon li ci des ci ay kàddu oustaz mu jàll ci kàddu ji def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf El Hadji Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy directeur rajo Daaru Muxti FM te taxawaayam rafet lool ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko ni mu ko waxee rek noonu la Serigne Jaxate mi ngi nii ànd ak délégation bu takkoo takku ñiy jóge tool si ñu man cee ràññee soxna Marème si la ñiy jóge Sam Yabal ñiy jóge Yabal fenn fu nekk ay mbooloo jóge fi ànd ak moom ci la rajo bi di feetu tey jii fukki atam sëriñ Moustapha Ndiaye nee na mi ngi leen di jotal cant goo xamante ni aw làmmiñam lott na ci wax ko euh, ndax xolam dafa sedd ci yëg gi ci safoo gi ci bàyyi gi ngeen bàyyi xel rajo bi ak ñor gi mu leen ñor ba tax bis bi bi ñu wootee ngeen bàyyi seen itte yëpp ñëw teew ànd ak moom ci bis bi sëriñ bi muy ñëw itam délégation bu takkoo takkoo takku ànd na ci ak moom way jure mu ngi ci biir soxna Ndey Jaxate ñu koy bu baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko te wéral ko lii mooy li nga xam ne tàmbaleegun nañoo ñëwagun des na ay délégation yu bari yu ñëw yoo xam ne egsee guñ incha allahu taala bu ñu egsee ñoom ñëpp di ngeen leen fi mën a ràññee ñu rappel leen foo ñu jógee kenn ku ci ne buy ñëw da cay ànd ak yéene ju sell ànd ak seen pas-pas ànd ak seen yéene ànd ak def ci seen alal kon Serigne dama lay jox kàddu gi nga nuyoo ziara bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bu gën a rafet ci nuyoo yi di leen siyaare di bu baax ci bis bii nga xamante ni fekk nañu ko ak boole gi ñu ci boole euh, sëñ Oustaz ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu sëñ Moustapha di ko siyaare ginnaaw loolu nag noonu dañu leen di leeral ñi nga xamante ñoom lay àndal rek boo ko defee kàddu gi ci gàttal comme que mbir mi daa xaw a xat lool ñu jëkkante waxtu wi bàyyi sëñ Talla mi sunu kàddu soxna Baali Jaxate mi mu jottali ko dañ leen di bàyyi sëñ Talla kon mu jottali suñu kàddu suñ cant rek li sa Oustaz Ahmad boobu dina ko mën a bi yàlla dogalee bis bi jub si dëkkandoo yi ak xarit ak wëlëri yëpp bi ma leen ko yëgalee dañoo ànd ak man ñu man ci ràññi sëriñ aadama Sarr mii nga xamante ni moo jiite daayira bi nag sans yobal di xidmatul xaddim ànd ak mbooloo mu takk mooy itam ñëw ci suba ànd ak man diggante tool ak njaxate benn dëkk rek la du ñaari dëkk soxna Mariam si ànd ak euh, délégation bu takk mooy itam kon mooy itam noo ngi koy sant di ko gërëm bu baax sëñ Alaaji Wàdd mi ngi nii jógee Mbéngeen mooy itam ak soxna Ndey Wàdd mee ak sëñ Talla Diagne mi nga xam mooy chef de la su yabal ñoo ñoo ñi nga xam ñoom lañ àndal kon nag dina nga xamante ni day gàtt rek te dañuy jëkkante waxtu yi kon dañuy bàyyee sëñ Talla suñu kàddu rek bu ko defee mu jottali ko li des nag incha allah rabbi dañ leen di mbokki taalibe bi ak bàyyi son yi di am mbégte bu baax ak kontaante bu baax ci boole gi nu boole ci mbir mi di leen sant di leen gër bu baax a baax di ñaan sunu borom tabaaraka taala mi nga xamante ni moo mën a dimbali te mën a taxawu te mën a yëkkati ab jàmm yàlla nu boole yëkkati yàlla nu boole dimbali ba yéene ji ngeen am ci bis bii sunu borom dimbali ba matale ko ci jàmm salaam di sant ñëpp di gërëm ñëpp sunu xol sedd kon dañuy bàyyee kàddu gi sëñ Oustaz Ahmad boobu. jërëjëf ci kàddu yi am solo yooyu sëñ Modou Kara Thiam bàyyi ko tool mi ngi dugg si léegi Pape Alassane Mbow ñu ngi lay gërëm bu baax ci liggéey bu rafet bi sëñ Abdou Kane jàngkatu xasida moom itam dugg si na léegi kon daal mbooloo maa ngi ñëw bu baax a baax xam naa damay jox Serigne Soin bu Diop rek ndax magi bayti yi ña nga ca studio ba war tàmbali danoo njëkkante woon ak ñoom rek àbb leen ay minutes yu tuute rek damay jox Serigne Soin bu demee ba ci kanam dinañ mën a ubbi micro bi gën koo yaatal kenn ku nekk incha taala li ci sa wàll mën la caa sédd baax a baax Euh, Moussa Saré maa ngi lay nuyu bu baax foofu ci Ngali Xuma di nuyu Serigne Moustapha Xuma di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi déglu rajo bi waxtu wi noo ngi leen di ziar bu baax di nuy Got Saré ak waa kër gi yëpp nag ma leen ziareel bu baax a baax sëñ bu Diop euh, moom itam di koo xam ni moo yore commercial rajo bi moom sëñ Souhaïbou Diop mii lépp luy communiqué lépp luy tàggee lépp loo xam ne annonce màggal la lañ cay joxe ci xéewal moom moom lañ koy waxaaleel moom lañ koy jox moo koy taxawee mu yore commercial bi ñun ci suñu wàllu bopp ñoo yore wàllu desk religieux yi mooy waxtaani diine yeeg waxtaani sëñ Samba yeeg waxtaan yi nga xam ne ñoom la ji Pape Alassane Mbow moo yore émission bégal say soppe yi nga xamante ni moom xasida sëñ Tuubaa yi la leen di tegal ci tegalin wu neex a neex a neex bi nga bind ginnaaw bi ñu la nuyoo ziyaare la ñu la nga yeggale jërëjëf euh, oustaz euh, Ahmad Mbow jërëjëf euh, Serigne Jaxate moom it di kenn ci rajo bi waaye di koo xam ne jànkatu xasida nii ngeen ko gisee bu mag kon ñu ngi koy siyaar di siyaare waa Njaxate ñëpp xam naa kon comme li ñu waroon wax lépp wax ngeen ko daanaka dañuy lim ñi nga xam ne délégation yi fii fi ñëwagul rek ndax euh, délégation yi ñu ngi ñëw am na ci ñoo xam ne bindaguñ leen am na ñoo xam ne jaaruñ ci man am na ci ñoo xam ne aw nañ fi ndax am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi fi ndax euh, Serigne Jaxate mii doon wax léegi jóge fi nga xam ne moom mooy njaxate ak mboolem ñi mu àndal Serigne Youssou Jaxate moom itam délégation am soxna moomi Mbàkke mi nga xam ne ci waa këram la te ne fii ak ak jigéen ñoom àndal ñëpp agsi nañ euh, Serigne Khalil Ndiaye ànd ak Serigne Moustapha Ndiaye ak maam Thierno Ndiaye jóge Kër Saala agsi nañ Serigne Cheikh Aw ak ak jóge tawa ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal di délégation bu am solo ak si nañ Serigne Naar Diakho di kenn koo xam ne ci ñun waaye kenn ci rajo bi koo xam ne sunu mag la sunu lépp la moom ak ak délégation ni ngay waxee eh, Cheikh Awa Balla Guèye ànd ak Serigne Ali Dieng moom itam délégation bi jóge Dexële di chef de village bi ak ki nga xam ne mooy AG chef de village bi sëñ Cheikh defe naa loolu eh, délégation bu riche mënu koo weesu ak si nañ Serigne Fallou Guèye moom it eh, kër Aliou Ndiaye bokk ci njabootu Serigne Ndiogou Ndiaye moom it eh, li mu dafa gën a rëy sax moom itam ñëpp a rëy la waaye dafa def yebal délégation am boole joxe wataam ne wata bu aaje fanaan sax na fi fanaan ndax rajo bi lebal lañ ma loo xam ne mënu koo fay laaj oustaz Mbow ñëpp mu laaj leen kon moom tam ak délégation am nañ sëriñ aadama moom itam jóge saam yebal wax nañ ko alaaji Wadd moom itam ñi ngi koy siyaare bokk njabootu sëñ Fall Wadd eh, sëñ Ibrahima Wadd ñoom tam ñi ngi leen di siyaare bu baax Serigne Modou Kara Thiam wax nañ ko léegi ak magu bayti ñi ak eh, délégation yi xam ne xëy na bindaguñ leen eh, buñ leen bindee rek insa rabbi eh, da yëpp dana jàll ndax lii day fantar buy ubbi tuuti rek ndax magu bayti ñi ñu ngi ñuy xaar sëñ Abdou sëñ Abdou Kane jóge jabar ki moom it di jànkat bu mag moom it mi ngi ci bis bi fa tabarakalaaw ku ne xam na xasidaam yu am solo ay bandam yéen a koy dégg mi ngi ci ñëw na ak délégation yu mu àndal yëpp jóge jabar ki kon daal mën naa wax ne suñ bokki pulaar yi damay wax ne moom pulaar yi kenn desut daañu leen bind ñoom tam ñi ngi ci eh, te toog ñu ngi daañ dem ñoom tam jël délégation yëpp bind leen eh, sëriñ Basiru Sylla nag mooy sunu xarit di partenaire rajo bi nekk daa eh, Touba Mbacké yor fa réseau bu mag boo xam ne fa tabaarakallaaw mën naa wax ne genn wàllu Touba li ci bari lépp ci moom lay jaare yàlla dogal bi ñu amee bis bi te lu am tam ci ci paan day jóge Touba place ñëw defar ko lépp moo tax tey bi ñu ko waxee bis bi mu ne moom parce que day ñëw du laaj dara day ñëw defar ñuy lépp kon moom tam ñu ngi koy sant xam naa jàppe ko ci rek képp koo xam ne amati lu mel ni moom euh, moom Basiru euh, bokk na ci dëkk bi tey euh, la ko jiitu waa gàmm gii bëgg a ñëw daaw bi ma ko booleeg waa islaaw day laaju leen dara ca lim leen abal ren jii noo koy sàkkuwaat ci moom kon bu koy ndax daañ ko sëñ daan mi ngi fii di la di lay déglu kon bu ko fee rek eh, oustaz Sone Mbow duñu guddal ndax magu bayti ñi xasaayit am na solo ak sëñ Abdou Dia mbay Mbaye sëñ Abdou kan ñoom ñëpp da ngeen leen dégg tey eh, suñu bokk jigéen ñi ne gis nga ko ñoom tam wax dëgg yàlla kenn du dem des ndax dañuy wax ne li sëñ Fallou Astou Dieye daan wax waaw leen jigéen ñi ne waaw leen kumba góor ñi kon jigéen ñi ñoom tam kenn demul des ñu ngi leen di siyaar bu baax euh, ma ni ma ko waxee yaay jànkati délégation ñëw na ànd ak euh, ki xam ne moom mooy deuxième yaay ji nga xam ne yaay jànkati il faut ñu gërëm ko ndax euh, soxna Ami Dieng ra dippi rajo bi ba mu ubbee ba nëgëni laa mille 2005 ba fii nu toll amul dimaas boo xam ne dana ñëw te du yë yëkkati teraangaam yëg jàngkat bi bu ñu tegee jàng boo xam ne day jàllaat sax du ko xam ne day yëkkati teraangaam yab la ku ñëw ak ñi mu yóon ñëpp kon bu ko fee moom ñu ngi koy sant bu baax ñoom ah, wàllu gërëm ñëpp ñoom tamit ak waa ñëpp a ñëw xam naa ne moom ni ko wax woon insa arab bi ñëpp ñëw ñëw waa xam ne lii moom day délégation bu ne fii rek ñu dalal leen fii si salle bi Eh, rek waaye daan ñëwaat yëpp daan ko lif ndax ña ngay jël leetar di bind yëpp eh, kon bu ko defee nag eh, oustaz ñu ngi lay sant bu baax it ndax moom mii lépp luy dox ci rajo bi ci lislaam mooy ki nga xam ne moom moo ko jiite boo déggee relisi mooy mooy loolu mooy loolu kon moom tam ñu ngi koy sant bu baax te boroom xam-xam bu laa biir bu yarut ndax boo ko gisee nii xam-xam bi fa tabarak moom alaaji Moustapha Ndiaye ñu ngi koy sant moom ndax Moustapha Ndiaye day koo war koo war koo xam ne waru noon bokk di toog ak moom waaye dañuy dem fenn sax dañuy bàyyi ñu toog ca kaw moom mu toog suuf te ku ne xam ne sëñ Mbaye Ndiaye kill ku ne xam na ko ku ko xamul itam dégg nga ko kon kooku bokk na te bokk ci waa këram ci doomam du sët sax doom la kon kooku moom itam bu ñu toogee ci kaw mu toog ci kaw wala nu toog ci kaw mu toog ci suuf te dañuy dem ci ndaje moo xam ne du nangoo toog ci kaw day toog ci suuf waaye nag wolof Njaay def ne jógal dem ci kaw moo joon wàccal dem suuf ndax boo toogee fu ñu la waral fu ñu la tooglawul rek bu wëttu daa ne toog wàccal may gan yi Eh, kon moom moom xam na loolu yar bu yar la am li Serigne Touba di jàngale loo bari bari xam-xam boole ko ko yar moo ko oustaz mbaw mi seen xam-xam du feeñ ndax yar bi kon bu ko feeñ ñu ngi leen delloo kàddu gi eh, ndax magu bayti ñu ngi bàyyi xel kon oustaz Mbow di sant nag euh, Pape Alsane Mbow liggéey bi waaye nag tey moom mi ngi liggéeyal boppam tey xam naa ne moom du jar gërëm <laughs> jërëjëf sëñ bu Diop ñoo ngi ziar bu baax sëñ maam seex sàll bàyyi ko ndangu ak sëñ maam Xawsu Sall ñoom itam jóge ndangu ànd ak délégation bu takku ñëw nañ léegi Euh, di leen ziar bu baax di leen wax jërë ngeen jëf di njabootuk sëriñ maam Adama Sall ma nga xamante ni euh, ba euh, ba ba le ba sëriñ Touba boole sëñ maam Adama Sall ak borom daaru Moxti yi la daal ñëw fas yenee dëkk naka noonu sëñ Mahmoud Mbegere muy ñoo xamante ni seen diggante ak borom daaru ajuma gaaw la bis doxu ci aji ngoone sare ñu ngi lay ziare bu baax yow itam di la la sant di rafet lu ànd gi nga ànd ak ñun ci jotaay bi waa Ngalik gépp ñoo ngi leen di nuyu ñëpp ñu déglu rajo bi rek ak fu a nekk ñoo ngi leen di nuyu leen ziar bu baax a baax delloowaat antenne bi yi bayti yi ngir ñu war na ubbil nag bés bi ci xasiday Serigne Touba yi bu nu noppee nag li des ci antenne bi lépp incha allahu taala dañ koy fas yéene ànd ak bokk yi ndax wolof dafa wax ni bëgg yëg rek ko koy fay te na nu ne rajo Daaru Muxti bëgg ngeen ko kon nag nun li leen ameel mooy danañ leen yëg ba ngeen yëg ni yëg nañ leen bu baax a baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Ka mooy oustaz bi yore wàllu waxtaan yi ci wàllu pulaar moom itam mi ngi wax ak bokki pulaar yi di leen dalal délégation yi yëpp dana ko enregistré indil ñu ko Baye Aliou Dieng itam naka noonu ñoom ñëpp kenn ku ci ne ci wàllu wa nga féete nga ci jotal say bokk la nga ci war a jotal xam naa li ma ci doon dolli rek euh, sant bu baax tey na ñu ngi ne moom sëñ bàyyi xawsu sëñ xawsu bi bu yabale woon ka gën a fegg ci foofa di taalibe sax doy na sëkk waaye xam nga bu yëkkatee jëm moom ànd ak maam Cheikh di chef du village ba loolu moom itam lu rëy rëy loo xam ne mënuñ koo fay kon bu ko fee rek ñu delloo kàddu bi jërë ngeen jëf mbokk yi kon ba ci kanam incha allahu taala xam ne itam njàngum euh, bi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci mawlud bi euh, am na ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu ràññeeku mi ngi koy taxaw ci liggéey bi Baye Abdou ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la yow itam kenn ku ne xam ne sa taxawaay ci liggéey bi ñu bëggoon rek nga indi ñu lenn ci ay kàddu ci bis bu tedd bi waaw jërëjëf Papa Alassane di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di sant sama ñaari waajur ah maa ngi siyaare xalifa général Serigne Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wër ak Serigne Cheikh Khadim Mbacké jëwri Cheikh Ibrahima Fatou Mbacke yàlla na fi yàgg moom te wér waaw ah, li ma ci wax nag lu bari am naa doomu aadama yi moom lu tool bari bari bëgg nañu waa borom door nañu bëgg te ku bëgg borom door di nga bëgg rajo bi kon Chérif Tawaay fii dara warul ko lu may maam Thierno maam Thierno nag ku doon jëm ci moom moom raw nga loolu yaakaar naa ko moom yaakaar naa loolu lu am la ah mbooloo fi dañ ñëpp itam rajo bi lañ safoo yëg ko teg ko fu kawe bu sañoon mooy mooy jiitu ci rajo yi lépp ci mboolaan mi boo ko seet bu sañoon rajo bi mooy jiitu ci rajo yi rawaati ñoom jàng xasida jànkati xasida yi ndax bari na fi jànkatu xasida boo xam ne ji fa mu yàgg ab turam yàgg fa ab tànkam dem fa te rajo baa ko fa yóbbu kon loolu boobu Alassane ñu ngi leen ci sant bu baax di leen daan dem ba def ko dem ba am ay télévision yu bare bare bari ci barki xasida yi ñu ngi di taxawee muy bis boo xam ni fa tabarakalaaw biñ ko wootee mbokk taalib yëpp wuy si nañ wuy si boo xam ni wuy si bu ràññeek la tabarakalaaw ñi ngeen gis ñu toog ñoom itam di ay kilifa yi nga xam ne ñu ñu ràññee seen taxawaay la euh, si yoon wi sëriñ Adama Touré mi nga xam ne moo ngi bawoo ba Touré Fass waaye itam sëriñ Abdoulaye Ñakk mi nga xam ne ma nga bawoo ba diwaan si la dëkk suñu ma parti si la euh, sëriñ daam ja di conférencier bu mag boo xam ne xam nañ ko ci yoon wi tabarakalaaw taxawaayam ràññeeku lool Baye Dame Sall mi ngi tam mi ngi jógee ba Touba Lugul waaye euh, suñu toog ak suñu Baye sëriñ Talla Der Baye Talla kon ñu bàyyi la kàddu gi euh, ba ci kanam nga euh, waxtaan ak mbokki taalib yi. ah kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waaw ñoo ngi santaat yàlla nag dolleete ko sant nag. ndax bu fekkee def laa defal loo xam ne dafa mel ne dafa xaw a jomm sa jëmm ji da ngaa war a sant kal ko defal nag yàlla la ni dolli santaat santaat Seex Ahmad Bamba nag ndax dañoo def lu jaar sant ah, jërëjëf moom ku jëf daf koo jaar wax lool ku jëful dara nag ku la na jërëjëf da lay jaay waaye jëfoo dara dañu jëkk a nuyooti nag sëñ Cheikh Sidi Muxtaar mi fi nekkal Seex Ahmad Bamba dalu ci tegaat nag sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke mi fi nekk borom daaru sëriñ Cheikh Xadim nag danoo siggal nekk te yoo waaye borom daaru mu te li tax sëriñ Touba defal ko muy di doxale wan na ne nun daal taalibe sëñ Bamba la ñuy doon ba ba ni faatu nag di toll ba sëñ Bamba fas yéene nag ñaanaat ci doole sëriñ Touba sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke yàgg fi lool nag ndax siggal na nu sagal na nu nag siggal na daaru mu waaye damay dolli nag ngir sag laat sama bokk yi nga xam ne mboole ñëpp nu fekk si danoo woote woon wuy si nañu woote ñu wuy si la nag boo ko defee war ngaa sant ñu la wuy si nag nun ko yëf wuy si nañu tax ba wuy see nu nun kawee suñu jot waaye xam nga soppee mooy ku bëgg ku bëggul nit doo ko fekki dañoo bëgg moo tax ñu fekk si nu ndax li ñu wut rek mooy dëgg ñun sëñ Bamba ji rek lañ nekk ak Ceerno ci doole sëriñ Touba ñaanaa de ci doole sëriñ Bamba ak Ceerno képp ku fi ñëw yàlla na yàlla sagal la si gëllë la fii ne si gël la fa nu jëm ëllëg may la àjjanay biir ak yow biti yàllaa nu moom ku moom sa yëf lu la neex nga ko def na yàlla mi nu moom nag yàlla nu may àjjana boo ëllëgee ci doole sëriñ Touba yàllaa moom wér yàlla nanu wéral yalla moom yor yal na nu yoral yalla moom defal yal na defal defal gudd yàqati ba faw yàlla moom àjjana yal na ko may képp ku fi ak ku fi ak ku fi bëgg a ñëw ak ku fi ñëwul ci doole sëñ Tuubaa boo ëllëgee ndax moom moom lépp noo ngi leen di doole sant di sant ñëpp nag di ñaanaat ci doole sëñ Bamba ak Ceerno yàlla yokk xéewal yi ba dara dootu leen ko manqué le yow mi nga xam ne yaa ñëw indi télévision bi faaw Assane Mbaw danoo doole sant moom mi nga xam ne dafa wone wone rek liggéey sëñ Bamba rek la xam nga télé lenn la wone rek la dafa fas yéene boobu buñ lay wone lan la wone ci lépp lu baax lu bon lu ne buñ la ci wone rek ci loolu Sëriñ Tuubaa noo ngi fas yéene nag Sëriñ Ousmane Mbacke Noreyni nag dafa ne woon maam moo deer ma ne ko Mbacke mu ne fu ñuy waxee lu baax di ko fa defee nañ fas yéene ñu fekkatu fa fu ñuy waxee lu bon di ko fa def buñ fekk yéen nag da ngeen wone lu baax rek yal na leen yàlla wala ba faw ndam ba faw rajo Daaru Muxti bi ba faw te dootu suufee ba faw ci doole Sëriñ Bamba ak wa salaam bismillah te Daaru Muxti FM eh, di Babacar Fall eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko foofee di këri ngëneel yi gën a kawe Eh, ci ci ci ci kër yi eh, ba tax na ne ñu ngi sant yàlla bu baax ba jamono jooju nga xamee ne nii ñu ngi nekkandoo woon ak moom eh, xamuñu ci woon moom lu dul lu baax wax dëgg yàlla jamono jooju nekkoon nañ fi ak ki nga xam ne muy sëñ baax ak ki nga xam ne mooy Gora Sarr benn technicien la ñu amoon ci jamono jooju muy Masseer Fa kooku lañ fi nekkandooloon ci jamono jooju ku xool ci jamono jooju ba suñ jamonoy tey jii nga xam ne li sëñ Cheikh di waxoon ci en bi may dem ci moom am ak waxtaan teg nañ ci bët bu baax a baax a baax a baax ndax waxoon na ne day rajo bii nga xam ne mooy rajo Darou Mouhty suñ ko jàppee niñ ko war a jàppee doxale ko nu war incha allahu dina dem fi rajo yëpp dem mbaalu ko raw loole nag ñu ngi ciy teg bët suñ fi mu nekk nii kon nag du ñu def dara lu dul maanaam sant yàlla sant leen yéen ñi nga xamee ne yéen a ngi jàpp ci liggéey bi sant ki nga xamee ne moo fi nekk tey directeur di Moustapha Ndiaye ak ñeneen ñi nga xamee ne bëgg naa leen a tudd ci xaw ma seen tur maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci santit sëñ baax Mbàkke moom itam bokkandoo woon nañ fi jamono maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi nag xamal leen ne maa ngi saam nekkandoo fa ak doomi sëñ Modou sa Dieng di sëriñ Abdou Samad maa ngi koy siyaare bu baax ci bis bi di ko sant di sant waa saam yabal gépp ca yu bëgg ñu bàyyi xel ci rajo bi xam ne ñëpp ñi nga xamee ne ñoo bokk rajo bii li jëmale rajo bi kanam nañ ci jàpp bu baax a baax a baax a ndax ci ne incha allah Daaru Musti FM dina dem fu rajo yëpp dem mbalalu ko raw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu El Bou Fall euh, wax dëgg yàlla ñëpp namoon euh, fa tabarakallaahu li mu daan defee émission bi nekkoon na lu nga xam ni lu daan dégloo askan wi rawatina mbokki naaram yi nga xam ñoom laan liggéey bi di gërëm Serigne Bassirou Sylla moom itam daaree xasa it nekk fee ba Touba di suñu xarit di suñu partenaire di suñu wëlëre moom itam ci liggéey bu rafet bi kon ñu lay gërëm di la sant xam naa Cheikh Mamadou Bassir a participer ñu may leen euh, ab diir boo xam ni danañu mën a woote ci 88 628 036 bu ko defee ñoom euh, mën a indi seen i ziyaara ndax ñëpp mën ñu maasindoo ñëw fii waaye ku am yéene te ñëwutam bu boobaa nga mën a daal di tàbbi ci antenne gi euh, Serigne Bassirou mu bokk ak yow communication ba ba léegi ñuy doxal ci bis bi am na loo nga xam ni war nga koo sànni fii nag ñu doog nag ci kanam tuuti àndandoo ñun ñëpp dem ca pénc wéyal bis bi Serigne Bassirou yow mi nekk directeur communication ma jox ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey jërëjëf Serigne Pape Alassane Mbow ak mboolem mbokk yi nga xam ne rek euh, yéen a ñuy teewlu ci seen rajo Darou Mouhty FM 104 point 4. Euh, ni nga xam ni rek euh, noonu nga ko waxee noonu la demee. tey dañu am mbégte ak kontante bu baax a baax ci bis bi nga xam ne moom la ñu yendu euh, ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu directeur général euh, El Hadji Moustapha Ndiaye euh, sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ndax wax dëgg yàlla dañu ne ku yokkut yaa wàññi te moom nag mi ngi yokk li nga xam ne moo ñu dajale ci saal bi tey jii di lu am solo ndax bépp président commune boo xam ne mos nga fee jaar rek yaa ngi ñu ngi afficé sa foto nii. tey ñu jox sëñ Daouda Ndiaye kàddu gi mu présenté kilifa yi jox leen ñu àggale liggéey bi. fii Idi fay mi ngi fi ak docteur fay ak euh, ki nga xam ni moo di euh, Mandoy Ndoy di opérateur économique di conseil itam fekk ak adjoint sous préfet ak proviseur lycée di Mbacke Ndoy ak euh, invité yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii tey fekk si liggéey bi ñuy def liggéey bi nag monsieur le préfet li ñu ko doon xalaatee maanaam tey dañoo foto woon nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi mos a nekk président communauté rurale ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk maire ki nga xam ne moo fi nekk maire ñu représenté ko fii ndax dañoo xool ni itam loolu lu jaadu la war nañ koo am ku fi dugg itam muy histoire nga war a xam li nekk fii ñu tàmbalee ko ci sëriñ Ousseynou Sylla mi nga xam ne moom la ñu sëriñ Modou Awa Balla njëkk dénk dëkk bi moom moo nekk noonu di doomu sëriñ Moustapha Sylla euh, sëriñ Mapati Sylla bu diiwaan moom la sëriñ bi njëkk a dénk commune rurale bi mais entre 78 et 79 daanaka rek bi réforme bi duggee euh, donc euh, waaw bi loolu jàllee moom xam nga ni yàggu fi ndeysaan mu daan di jiitu ji ca barsàq yàlla dogal nag euh, bi ñu ci jógee sëñ Modou Awa Balla jëlaat commune bi dénk ko doomam di sëriñ Bassirou Aslo ñu ngeen koo xam ci sëriñ Bassirou Karatiel de 79 à 2001. loolu itam lu ci ne moom moo jiite commune rurale bi euh, di ko jiite ci anam yi mu rafete ba yàlla dogal mu dem ba dugg ak mag nag ñu daal di ko fi jële wala boog mu jeexal mandaam ñu indi sëriñ du Baax Mbacke. sëñ Mor Mbaax Mbacke jël entre 2002 ak 2007 euh, waaye ci diggante boobu dinañ fi rappeler tuuti rek ne boo seetlu entre 2001 ak 2002 am na période de flottement boo xam ne ay délégation spéciale amoon na fi boobu ku ñuy wax Modou Sarr di chef de serre Darou Moussi moom moo jiite woon euh, commune rurale bu Darou Moussi donc moo ko yor yor ko yor ko yor ko ba sëñ Modou Baax ñu installé ko moo daal di jël jiite commune bi ah, après moom bu mu jeexalee en 2007 Thierno Lo moom moo daal di jël ñu woote ko fi élection yoo xam ne Aboubacar Diop sous-préfet moo ko organisé woon ginnaaw Thierno Lo moomu euh, nag euh, eeru président conseil yi daal di jeex ñu dugg ci eeru maire. eeru maire bi nag l'histoire va retenir que ne Madiop Bitèye moom moo njëkk a nekk premier maire bu Darou Moussi yàlla dogal ko noonu mu jël nag en 2014 ba 2015 bi ba lu yàlla di dogal keneen ku ñëw it ainsi de suite loolu jàppe ne ci la sa photo ñu war ko mën a accrocher bi ainsi de ndax loolu mooy am ci dëkk yëpp ñuy fàttali rek ne sëriñ Modou Baax mii nag buñ dee dañuy wax ci jàmm ci rajo bi sëriñ Modou Baax Mbacke moom ci rajo bi ci moom la tijjee mu dénk ko ku ñuy wax Gora saar comme directeur euh, ñu ànd ak moom doon ko ci jàppale ñun ñi te loolu ñun lépp fekkuñu fi muy histoire rajo bi man doon naa ci seede lenn lu moom ci rajo bi amul. weer wu ne man nga maa bett man ne ma rajo bi lu mu am tey ci xaalis maa ngi la boo demee nga ma fa nekk te duma ma dem ci kees gi parce que xam rajo bi ak poste bu ñu occupé rek occupé naa ko ci. donc euh, en 2007 2007 2013 Thierno Lo daal di gagné daal di jox Mbaye Guèye Sylla mu nekk directeur. mais entre temps nag bi maa mu koy jox mbéy gi di lëg sa defoon na ma directeur intérimaire yor naa rajo bi presque un an et demi un an après un an et demi ñu door a confirmer mbéy gi si la moom mu continuer ko yor ah, ci buñ ci jógee nag ah, bi maire yi ñëwee ma jóg bi tey ci la daal di jël nag daal di samp moom tam nga xam ne mooy El Hadj Moustapha Ndiaye mu yoral ko rajo bi moom itam mu ñëw wëlbati ko am confiance ci ñun woo ñu ñu koy jàppale ci liggéey bi waaw loolu daal la histoire rajo bi tëdd nii moom ak commune rurale yi ak ak maire yi daanaka dañ doon inauguré nii rek ndax li jàpp nañ ne am lu ñu war a xam la lu nit ñi war a xam la lu rafet la waaw xam naa après nag danañ dem fële ci maire bi ci rajo bi am leneen lu ñu fa inauguré loo xam ne bu ñu yeggee ah, ñu wax leen ko ngeen dégg ko la loolu daal Bamba bu bees boo xam ne dañ ko ubbi ci biir bëgg ko def euh, salle de montage ak salle d'enregistrement ndax dañ ko daan defee ci biir rajo bi mu am ay rëq-rëq yu mu daan indi ah, waaw léegi nag euh, ñu indi ko fii salle bi ñu transformé ko ci biir euh, di ko inauguré tey li ko defal koo xam ne kii biig moom lañ doon waxtaanee ci rajo bi muy Babacar Fall moom bi ñu ubbee rajo bi en mille 2006 dafay ñëw jóge Dakar ñëw ne man na mbiri rajo ak yooyu boobu ñun xamuñ ci dara bi mu fi ñëwee di tam am ay mbokk سدرك أنت yi comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko waxee rek tey jii mooy bis bi nga xam ni moom la ñu baaxool euh, jagleel rajo Darou Mouhty FM ginnaaw bi nga xam ne am na fukki at ñu ngi ko fi indi woon ci 2005 yàlla dogal tey jii ñoo ngi ci 2015 mu am fukki at ñetti fan njëkk màggalu Touba 2005 la fi ñëwoon bi ñu demee ba ñetti fan njëkk màggalu Touba 2015 bi ñu xam ne diggante boobu xat na ñu jël tey jii le 13 décembre 2015 def ko muy bis boo xam ne dañ koo jagleel Darou Mouhty FM ni m ko waxee rek euh, noo ngi fii ak monsieur le maire Madiop Biteye Euh, noo ngi dend itam ak Serigne Dame Dia noo ngi dend itam ak Serigne Mamour Der mi nga xamante ni moom ci kuréelu soppee rajo bi ci la bokk monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax yàlla dogal na tey rajo bi bu muy feete fukki atam yow la tombeel ñu dénk bi rajo bi jaar na ci ay loxo yu bëri jaar na ci loxo Serigne Gora jaar na itam ci Serigne Mbaye Guèye Syll yàlla dogal ci kattanam ak mbaaxam ak baaxu sëñ bis bi ñuy feete fukki yi yàlla dogal mu nekk ci sab loxo euh, nga dénk ko sa xarit alaaji Mouhamadou Moustapha Ndiaye nu mën a wax ni ñetti at yi mu yor rajo bi di ñetteel directeur liggéey na ci loo xam ne fukki at yi passé liggéeyam ci li ñu toll kon ñu ngi la koy seereel bu baax a baax ci rafetug liggéeyam ak ak sellam nu sàkk woon ci yow rek bëggoon rek ay kàddu yoo xam ne bis bii tey di bisu anniversaire rajo bi yooyu di ñu ko baaxee mbokki auditeurs yi mbokk yi ñu seetaan ñu déglu ko monsieur le maire. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ci santam. di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Cheikh Khady Mbacké di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal ci suñu kanam te mu wér ziar boobu ak nuyoo boobu ak ñaan yooyu itam ñu ngi koy yéene Serigne euh, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké bi nga xam ne ñun euh, waa kër borom Darou Mouhty moom lañ yaakaar ndax Serigne Touba lañ yaakaar te moo fi toogal Serigne Touba. di ñaan yàlla yàggal leen fii ci suñu kanam ñu yàgg ñu gunge yàgg ñu teete yàgg ñu ñaanal yàgg ñu wan yoon bi nga xam ne ci lañ war a jaar ndax suñu dëkk bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a jëm ca ca kanam dañ koy faral di wax te gëm ko dëkk bi dëkku borom daaru la borom defar na ko ba pare eh, àgg nañ ca wala àgguñu ca eh, dans tous les nit ñi danañ gis li borom def ci dëkk bi te am na lu luñ ci jot a gis ndax dëkk boo xam bu amee téeméeri at mi ngi koy dog di am ba lam ca tegal bariwut te mel noo xam ne dëkk yu am ay ati at ay téeméeri téeméeri at ñu ngi fi te meluñu noonu kon war nañ xam ne dëkk bi am na loo xam ne nii borom def na ko ci am na loo xam ne nii suñu borom def na ko ci dëkk bi jaarale ko ci ci ci ci borom dëkk bi moo tax bi ñu yàlla defee ñu njëkk a nekk meeru Daaru Musi itam dañuy fu ñu toog dañuy fàttali suñu ku taalibe ne li ñuy liggéey ci dëkk bi dañ ko war a liggéey eh, ngir eh, sëriñ bi ngir suñu taalibe te mu dëppoog li nga xam ne moom la sëriñ bi sëriñ bi bëgg parce que comme ni ma ko waxee sànq ku liggéey dëkk bi dem ku liggéey dëkk bi dem kon nag dañuy santaat bu baax bi ñu borom bi boolee ci nga xam ne seenub liggéey mënees na koo gis ndax eh, am na ñu bari ñi liggéey yàlla mi ngi koy gis yàlla nag moom ab gisam moo wóor moo am solo mais am na ñoo xam tam lañuy ñuy liggéey yàllaa ngi koy gis nit ñaa ngi koy gis ñun nag liggéey bi ñuy liggéey liggéey buy fees la borom bi da koy gis borom dëkk bi di ko gis nit ñi nga xam ne ñooy ay taalibe bokk ak ñun dëkk bi di ko gis kon loolu sant yàlla la euh, buñ ci sante yàlla itam dañuy ñaan sëriñ bi mu continuer di ñaanal ndax yan boobu mën a nekk yan bu woyof ci ñun yan bu ñu àttan ndax am na ku naan ñaan mu woyof sax wóorut da ngay ñaan na wante nañ ko àttan donc su ñu ko téeñalee rek xam nañ ne dañ ko attan xam nañ ne dëkk bi am na ay potentialité yoo xam ne nii ñu ci taxawee rek mën naa mën naa gën a jëm ci kanam xaj na tey du du du jamonoy bilan pour mairie bi dañ am yeneen occasion pour wax su boobaa nit ñi dinañ gën a xam mais am nga loo ci jund euh, muy rajo bi ren la def fukki at fekk nañ ko fi muy góor góorlu mais itam ba ñu ñëwee jéem nañ def ay changement yoo xam ne jàppoon nañ ne suñu ko defee rajo bi dana gën a mën a taxaw te jàpp nañ ne ñi ngi ci yoon woowu xaj na àggagut fan fañ bëgg ak nañ ko bëggee mais xam nañ ne am na ay effort xam ñi ngi koy def te wàcc ñu yoon wi nga xam ne moo dëppook dëkk bi yoon wi nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ak ni nga xam ne ñi jiitu woon aussi laloon nañ ko xanaa koy gën a dëgëral gën a baaxal gën a xool lan mooy euh, wane gën a tax nit ñi diwlu suñu euh, suñu rajo ba fan yee wax ngeen ko am na benn euh, lu mel ne sondage bu ñu defoon maanaam ubbi ay bataaxal yoo xam dañ naan nit ñi ne ku nekk joxe xalaatam ci ni mu déggee rajo bi ni mu gisee rajo bi ak nan la bëggee rajo bi mel nit ñi wax seen xalaat waa rajo bi ñoo ko yore xool liir lettre ya daan ne dëkk bi kat ñi ci tontu bëggoon nañ léegi lii am fite lii amu ci woon nañ xool nan lañ koy defee tam dëppook dëkk bi jàpp naa ne loolu aussi ñu ngi ciy góorgóorlu loolu aussi dañ leen ciy félicité di li leen ci encouragé di félicité bu baax a baax sëñ Moustapha Ndiaye parce que initiative aussi nit buy jiite dara aussi dafay ubbeeku am ay initiative parce que bu ko amul rek day kon continuer di def na nit ñi daan def xaj na noona mën naa baax sax mais dugal ci lu bees aussi dana dana baax ndax xaj na kenn xalaatutoon fete fukki at rajo bi donc su fekkee ne moom ak ñi mu àndal xalaat nañ ko fete ko donc loolu dañ leen ci félicité di leen ci encourager di réaffirmer encore une fois suñu kóolute ci moom ndax ni muy doxalee neex nañu te jàpp nañ ne aussi borom dëkk bi ak waa dëkk bi itam ni muy doxalee ne neex na leen di ñaan ak di encourager ñi nga xam ne ñooy liggéey ci ci rajo bi yëpp parce que yombul euh, nga nekk Daaru Musi yor rajo boo xam ne rajo Daaru Musi la te nga bëgg fexe ba lañ cey wax ak lañ ciy jëf yëpp dëppoog la nga xam ne moo nekk euh, Darou Mousty moo dëppoog li nga xam moom la borom dëkk bi bëgg ndax rajo dafa yombut surtout direct boo yore micro di wax mën ngaa wax loo xam ne nii dootoo ko mën a dabuwaat donc moo tax ñi nga xam ñi ngi ciy liggéey itam ñi ngi leen ci encouragé bu baax a baax te mairie bi incha allah dana gën a taxaw seen wet gën leen a jàppale ba lii nga xam ne yéen a ngi koy liggéey ci biir dëkk bi incha allah ngeen mën ci taxaw taxawaay bu bu rafet en tout cas daal ñun nañu waa dëkk bi yëpp xam ne lii ñuy def ci dëkk bi muy ci mairie bi ñu jiite bëgguñu ci def lenn loo xam ne ni dëppoowut ak li sëriñ bi bëgg mën nañ juum nag mais suñu juumee itam bu ñu ko fàttalee wala bu ñu ko waxee rek ñu xam ne juum la ñu daal di delluwaat ginnaaw te ca njuum te loolu suñu bëggee suñu dëkk itam jëm ci kanam ci mbirum liggéey yi nga xam ne état moo ko war def wala mairie moo ko war a def itam suñu laajee nit ñi dara faw ñu comprendre ne laaj boobu ñu leen laaj dafa am fu ñu ko jëmee ndax euh, état bi moom du jox benn commune la muy doxe daf koy mosol tuuti rek ca la mu ko dénk léegi nag li mu bëgg a doxee nag moom ci biir dëkk bi lay jege moo tax léeg-léeg ñuy sonal nit ñi naan leen fay leen lempo fay leen patente fay leen juteeg yu mel noonu yooyu yëpp nañ ñu comprendre ne liñ bëgg rek mooy làmp yi tàkk du fay li ñu bëgg mooy jàppale gone yi nekk ca ca eh, daara li ñu bëgg mooy jàppale sëriñ daare yi liñ bëgg mooy jàppale école li ñu bëgg mooy jàppale euh, nu ñu koy waxee centre de santé ba hôpital ba ak yu mel noonu donc li ñu bëgg ndegam lii tax ñu mën ko def mooy jële yëf yi fii il faut nit ñu comprendre ubbi ne ubbeeku nañ nag pour ku am xalaat rek ñëw jox ñu xalaat boobu loolu moo tax suñu réunion bi mujj koo gis xam ne chef de village yaa ngi woon chef de quartier yaa ngi ci woon jeunes yaa ngi ci woon femme yaa ngi ci woon na ñëpp ba woo service yi nga xam ne ñoo nekk au niveau régional ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi jàpp nañu ba am nañ ay perspectives yoo xam ne jàpp nañ ne dana baax ndax am nañ ku ñu dig benn programme boo xam ne ñuy ñëw xaj na ñu tabaxal ñu ab forage boo xam day ànd ak tool ànd ak euh, euh, fu ñuy defee élevage am nañ aussi euh, programme boo xam ne ni dañu jàppale pour tabax ay douche ci ñi nga xam ne amuñu ko te seen loxo jotewu ko programme boobu incha allah dañ ci dugg 2016 am na beneen programme boo xam daf ñuy jàppale pour abattoir bee ñuy wax ñu mën ko defaraat ba dootu xeeñeete dootu amati xet même bu fa dee des itam daañ fexe ba dootu amati benn xet jàpp nañ ne programme boobu aussi danañ am financement yi ci ci 2016 am na yeneen éclairage euh, solaire yenn dëkk yi nga xam bëgg nañ leen jàppale ñu am solaire loolu aussi ñoo ngi ci dox dox ci tali yi nga xam war naa am ci biir dëkk bi ak euh, tali yi nga xam war naa dem ci yeneen dëkk yoo xam ne ni amagul tali mais ab rang-rang mën na faa jaar loolu yëpp ñu ngi ciy jéem a dox jàpp nañ ne ak jàppaleeg sëriñ bi ak ñaanu sëriñ bi bu soobee yàlla daar Mousty dana ko mën a am parce que maa ngi koy wax sëriñ bi keroog ne ko suñu nee euh, modernisation des villes religieuses daar Mousty boo ko jëlee mu nekk deuxième capitale du mouridisme ba pare boo ko xoolee ci région de Louga boo génnee Louga moom mooy dëkk bi ci gën a reyaat kon buñ ne modernisation des villes religieuses waruñoo xalaat beneen dëkk bu bu bu weesoo Touba ci ñun ci côté Mouride te xalaatu Darou Mousty tey jii def nañ ña ngay tàmbali dara Touba wala ab Wade tàmbali woon na ko Macky Sall mi ngi koy continuer yeneen dëkk yi tam noonu mais am na yeneen dëkk yoo xam jëru may tudd seen tur Daaru Musi moo leen ëpp ginnaaw ëpp leen lépp te ña ngi naan leen ville religieuse pour defar leen te Daaru Musi waxaguñ seen i wax donc moo tax may lancer un appel ci population Daaru Musi président de la République ak ñëpp ñoo xam mën nañ ci jàpp pour ñu xam ne suñ dëkk bi war nañ fi war nañ fi def dara encore une fois ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di souhaiter nag anniversaire bu bu neex waa waa rajo bi yëpp ak di leen sant aussi si euh, studio bi nga xam te tuddee ko koo xam doon na fi doon na fi liggéey en tout cas xam naa ne du ma guddal mais loolu bëggoon naa ko ci wax rek di santaat di leen gërëmaat yéen ñi nga xam yéen a ngi liggéey yëpp ci rajo bi di sant aussi ñi nga xam ñoo ngi ñoo njëkkoon a yor rajo bi comme ni nga ko waxee ndax euh, bu fekkoon ñoom itam yoruñu ko woon xaj na ñun duñ ko fekk donc ñoom jéemoon nañ ci dara bañ fekk fi dara ba yokk ci dara moo tax euh, comme ni nga ko waxee ñoom Kouré Sarr ñoom Baye Guèye la ba tey ci Serigne Moustapha nekk fi donc ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci liggéey boobu xam ne def nañ ko fi. jërëjëf monsieur le maire ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati nga ko kon mbokk yi nii seetaan gis ngeen ko kàddu yooyu moo bàyyi ko ci monsieur Madiop bi tey mi nga xam ni moo yore commune Darou Mouhty ñu koy ñaanal moom it yàlla yàggal ko te wéral ko xalaat yi ak mébét yi mu bëgg yàlla defal ko ci lu kawe kawe njottam Serigne Mortala Der mi nga xam ni moom ci kuréelu soppee rajo bi la bokk moom itam ba rajo bi ubbee ba nëga ni bokk ci ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ay jëwlin yu seen taxawaay rafet na lool Serigne bi bis bi ñu ngi la ciy nuyu les yow ak Serigne Dame Dia di leen delloo njukkal bu baax a baax a baax dañu ne woon nañ jël kàddu yi monsieur le maire rek waaye bu ñu demee fii danañ leen jël en direct ngeen mën a jotal seen i kàddu baax a baax a baax jërëjëf kon mbokk yi yéen ñi déglu ak ñi jàkkaarloo ci écran bi yëpp kon gis ngeen bis nga xam ne mooy bisub euh, rajo Daaru Muxti 104 point 4 eh, nga xam ne fépp lañu woon waaye ñëpp nu wuy si ñoo ngi fii fii monsieur le maire Madiop Tey waaye noonu am gan gu tedd koo xam ne moom itam mooy directeur rajo euh, Nasrullahi bu Kébémer eh, ànd ak euh, Adja Oumy Mbaye eh, kon dañ koy bàyyi rek mu yëkkati ay kàddu mu ñëw ci bis bi xam ne presse bi yëpp benn la lépp média yi benn la loolu moo tax tey mu jóg bu yabalan um mbay mi bu ànd nag délégation bu mu ànd rek bra waaye moom mu jiite délégation bi ñëwal boppam nag loolu di lu ci ñun loo xam ne sas nu sas wu kon eh, sëñ bi ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan rek bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalli allahuma wasallim ala alhaadi albashiri nashiri sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashaabihi attayibiin attahirin wa man ixtafa nahjahum ila aqri zaman mbokk jullit yi ñuy déglu ak ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di sant bu baax borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne bokk na ci dogalam yi ca mbaaxam nga ci yërmandeem nga ñu fekk bis bile waaye itam ñu tal euh, ko ba man ko ba man fi ñëw ndax mënoon nañ ko fekkee te dañ ko tal Euh, di sant euh, bu baax euh, yàlla ci may gi mu may itam ñi jiite rajo bi tabaarakallahu ci kilifa ya ñu ko sampoon ci loxo yi mu jaar ba ak si fii tey yëpp ñu dina sant la yàlla ndax seen bëgg-bëgg yàlla defal na leen ko te koy samp dara ku nekk da ngaa bëgg mu dëgër mu sax fa mu nekk fa seen samp boobu nag yàllaa ngi leen ko téyel ba léegi yal na ko yàlla gën a téye ci barke kilifa dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Muxti tabarakallahu yal na yàlla def ñëpp ñuy liggéey ci rajo bi yàlla def leen sawetaas àdduna ak yàlla bu ñu fi am ay waxtu yu ñuy rëccu wala bis bu ñuy rëcc wala at mu ñuy rëcc tabarakallahu lépp yàlla na ko yàlla defar choy bu ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkeel di ndokkeel nag fii ñuy waxee ci bureau tabarakallahu ki yàlla jël dëkk bi tey teg ko ci loxoom muy meeru dëkk bi nga xam ne li ñuy wax xool tey fii mooy xolu Daaru Muxti tey Euh, bu doxee daaru muuti yëpp dox na bu doxul daaru muuti dara doxul ndax mooy xool bi te mooy fii ci maire bi tabarakallah ñu ñaan nag yal na ko yàlla doxal di ko ndokkeel ci ayam tabarakallahu yal na yàlla seeral ko guyi tabarakallahu yéen ñi yor rajo bi tam noonu ñu nag dañu ñëw ànd ak Adja Umu Mbay mi nga xam ne animatrice la nekk ci Nasrullah FM wuy si seen bu woote te sañu ñu gàntu seen bu oote mën nañoo am gànt nag waaye sañoo gàntu seen oote bi ndax ngeen ñëw woo ci kaay leen ci la ñu bokk Euh, nu bokk ko di ko yëkkatiinoo di ko tegandoo bu dul dara sax Kébémer mooy Daaru Muxti Daaru Muxti mooy Kébémer boo ci tudd rek yóbbaale nga la ca des kon bu ngeen amee bis boo xam ne feeñal mbégte la war nañu ñëw ànd ak yéen ci mbégte loolu euh, tabaarakallahu ànd ko yéen ba mu jeex euh, di gërëm na ki nga xam ne ci moom la ko yàlla jaare muy seen ndaw muy Daawuda Njaay bi nga xam ne ñun moom lañ gën a miin ci wàllu rajo bi moom la ñuy dajeel ci séminaire yi di wax ak moom téléphone di bokk ndax moom ay liggéey yu bëree bëri ci yëpp nag mu rafetal ko bi ñuy ñëw rek laay jaa umu ma ne ko daawuda jar na fekki ndax dafa am yitte ci doomu adama mu naan ma ku baax ndax ni ma koy sonalee ci programme yi ma ne ko teyit comme ku ku wóor la euh, maa ngi fàttali contrat bi passé dañu euh, jël xaalis bi ba pare ba ñu bind euh, ñu bind chèque bi ñii ñu dafa leen facture Euh, mu ni femme bi léegi kon da ngeen may photocopier facture bi parce que mbooloo laa jiite. Euh, ñu certifié ko pour moo demee wan leen ko. waaw vraiment loolu defaat ci man lu rey parce que kuy dox lu leer euh, da ngay dox lu leer booy dox lëndëm nga xam ne lëndëm ngay dox. ndax manoon nañ ñu bari dañoo jël seen xaas rek daal di jëm kii mais moom daf ne nañ ma ko photocopier ndax dama dem a certifié ak feneen. loolu yëpp li muy tegtal mooy nar na leen a yoral seen liggéey mais am na lu mu ci bàyyi xel. te booy jëflanteeg nit mu bàyyi xel boromam bàyyi xel diineem bàyyi xel ëllëgam di ngeen mën a yàgg te loolu am na ci ndax yëg naa diinee ngi ci moom keroog la may wax ni ma jox ma numéro Adi Niass ndax daal dama koy suivre bu baax bëgg ko kii ma jox ko ko mu oo ko jotu ko gannaaw gi laa woo Adi tabaarakallaahu ne ko insistel nee na mi ngi lay jël loolu yëpp nag man tax man su ma soñoon man nit ku ragal yàlla lay jëflanteel ndax itam nit mënu leen di jëflante toujours nga di ko contrôler fu mu tànkam nga ne dama fay teg sama tànk loolu mënul nekk da ngay sonn mu sonn mais soo yëgee ni ki ngay jëflanteel nag ragal na yàlla am na lu mu bëggul am na lu mu xam ne ngorom mayu ko ko diineem ak jomam dina ko dina ci bàyyi xel su ngeen jëflantee rek mu mu neex doo ci am looy réccu lu mel na nag laa xam ci Daawuda tabaarakallaahu yal na ko yàlla sàmm mu jiite ko sëñ Moustapha ñi directeur général ñoom ñëpp yàlla sàmm leen ba fi ñu bëgg a yóbbu rajo Daaru Muxti ñu yóbbu ko fa Euh, te xam ne wax naa sànq bi ma ñëw ma ne ko euh, rajo mhm. su xësee émetteur bi xësee tàkk rek moomatoo ko ñu koy déglu ñoo ko moom ba kër muy fay bu fayee nag nekk del si waat ci say loxo mais su xësee tàkk rek ñuy déglu ñoo ñoo am sañ-sañ mhm. ñoo am ay bëgg-bëgg moo tax rajo doo fa nekkee mhm. li nga bëgg li fa nit ñi nekkee li fa nit ñi bëgg moom nga fay nekkee bokkut ak magnétophone bu nekk ci sa néeg <laughs> nga ne man cassette bi laa bëgg a déglu wala moom laa moom laay déglu rajo moom du loolu moom da ngay xool ñi nga xam ne eh, ñu ngi lay déglu Euh, suñu benn mbokk Sidi Lamine Niass mm-hmm. day wax ne bépp kaset euh, boo xam ne soo ko jaayee du jar mm-hmm. boo ko tegee rajo kenn du ko déglu mm-hmm. kenn ko déglu kon nga fexe ba teg rajo loo xam ne bii boo ko jaayoon tey mu jar ndax euh, boo bëggee gagné bu baax ay ci sa rajo mooy fexeel bañ nangu laa déglu buñ la nanguwul a déglu rek yaa yaa ngi yaa ngi yàq sa énergie yaa ngi yàq courant bi yaa ngi yàq sa temps fexe bañ déglu nag am programme boo xam dañ lay déglu te boo bëggee xam ñu ngi lay déglu tam bu sa émission jeexee wala loolu ñoom ñoo animatrice ñoo ko moom mooy su mooy su sa émission jeexee rek euh, déglu doxal doxal ci mbedd mi déglu réaction yi parce que li nit ñiy wax ñu ci biti ñi la doon déglu ñu wax loolu mooy dëgg wala boo rajo bi am na popularité wala amu ko ubbil ubbil téléphone bu téléphone bi ubbi ko rek ñu xam ndax émission bi ñu ngi déglu wala den bu ko defee loolu yëpp nag du tere na nga sàmmwante ak li ñu war a déglu ak li ñu warta déglu li ñu war a wax ak lu ñu warta wax ndax benn responsabilité boo xam ne euh, waxuma sa sa diggante ak ak nit ñi mais sa diggante ak yàlla sa diggante yàlla ndax itam lu fi jar euh, sa ëllëg naqari dara jaru ko fi dara jaru ko fi am na yoo xam ni jar na démissionnaire da gis ci tubaab yi ñuy démissionné pour affaire àdduna rek. Mm-hmm. mais sa digganteeg sa borom tam. bu la lii nar naa yàq sa ëllëg. Mm-hmm. bàyyil ndax lu jar yàq sa ëllëg. Mm-hmm. loolu dara jëru ko sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jàngal nañu ko ci yu bëree bari boo ko defee maa ngi wane daal sama mbégte ak sama kontaante di ànd ak yenn di bég nag ci invitation bi maa ngi am benn émission boo xam ne ñu ngi ko tuddee euh, na waajaa ngi Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mawlud teroo dafay 13h euh, maa koy animé ba 11h euh, ba 13h maa koy animé. Hmm. di ci invité ay kilifa diine ay borom xam-xam. Hmm. tey ji émission bi amut te lii moo tax amut. am na auditeurs yu ma woo ne ma waa suñu émission bi tey nu ñuy def ma leen ah tey de damay dem Daaru ti moo tax. Hmm. mais diiru mawlud bi diiru weer damay am 11h ba 13h kii xam na ci dara. sunu waajaa ngi Seydina Muhammad émission boobu mooy dox. waaye yéen ma jaral nag ma bàyyi ko waaye bàyyiwuma ko ndax li may wët si moog loolu tiyaab benn réab rek la kon daal ñu ngi kontaan baax soy bu di ñaan euh, yal na yàlla nangu lépp luñ fi ñaan yéen ñi yar rajo bi yëpp yal na ngeen am xéewlu àdduna am xéewlu alaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf directeur Nassirou FM bu Kébémer euh, defe na waxtaan yi am na solo ku ko dégg joxe na ay conseils yoo xam ne yu am solo la dolli nañu. Euh, rawatina ñi nga xam ne ñi ngi ci rajo yi di déglu ndax loolu mu wax émission bu demee ba jeex nga ubbi internet toog 30 minutes kenn duggut wala quinze minutes wala 10 minutes kenn woowu la nga wëlbati ko di siyaar yi dem xamal na sa émission dég dég déglu wuñ ko la ca war nekku ci kon loolu ay am solo la yoo xam ne ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la wax euh, dalal jàmm ku ne xam ne ne euh, directeur rajo amul temps ndax ñi topp ci moom sax amuñu temps sàkkaan ak moom mi bi nga xam ne tey lu bare bari la bàyyi kon temps tey bu ñu doxee fii fukki minute rek ci temps lu rëy rëy rëy loo xam ne mënuñ koo fay waaye nag insa rabbi daana ko jéem a sàmm bu soobee kon bu ko defee soxna euh, Adja Oumy Mbaye euh, di moom itam auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman euh, vraiment man ba oustaz waxee ba pare sax man amatuma dara lu ma ci war a wax ndax daanaka wax na lépp kon man su ma ci sànni kàddu dama cee mënta bañ a sànni kàddu rek moo tax ma ci sànni kàddu waaye maa ngi nuyu waa Daara Mousty bi bépp di nuyu sëñ Xalil mi nga di sama kóllëre alaaji bi nga xam ne moom la ma yàlla booleeloon di nuyu Daouda njaay mi nga xam ne moo nu fi indi nag di ko teg ci loxool monsieur le maire gi nga xam ne ñu ngi nekk tey ci bureau te yaakaar naa ni tubarkàlla macha allah fii nu toll nit kenn jorto wax kenn ndax oyof gu mu oyof baax gu mu baax moo waral ñu ñëw din recevoir fii ci bureau monsieur le ndax mënoon naa tëj bureau dem liggéey bàyyi nit ñi ci hall bi wala ci ëtt bi waaye dafa ibbi bureau ñoo di partagé wu ak ñun lii nga xam ne tey dañ koy defal euh, euh, Daouda Ndiaye muy anniversaire fukkeeli atu seen rajo euh, Daaru muy nit ku baax nit ku oyof tubaar fakàlla macha allah Daouda njaay nit ku disponible ci nit ñi nit koo xam ne man ko ko sonal laa saa bu ñu formation jàng naa dinaa xam mais loo xam-xam am ku la gën a xam damay bàyyi li ma xam ñëw ci Daouda dend ak moom di ko laaj di renseigné ñëw ci moom mu di ma gën a teg ci yoon ndax ak lu mën a xew nag fu mu am fukki at man am ma fukki at amoon naa ci sunu affaire ñaari at ñoo am ci ustaas mi presque juróomi at yu manqué waaye teew Daouda moo ma gën a maîtriser yëf yi. dama koy sonnal di ko woo téléphone fu ma toll maa ngi koy woo téléphone amul ñaari fan ñett yu may toog te woo woo ma daaw da jaay téléphone te mënoon na ma ne Adja bu ñu demee formation lan ngay xool ak lan ngay nangam nangam ba ba noo ma doo a maîtriser fii waaye mu xam ne ñu bokk liggéey bi tubarkàlla macha allah mu oyof lool ma di ko ñaanal yal na doon ay fukki fukki at yu bari ci barke Seydina Mohamed lépp lu fi liggéey yàlla barkeel ko wax dëgg yàlla waa Daara Muxti mënu leen a fay ndax bi nu dugg see gis na nit ñi tubarkàlla macha allah xam na ne nit ñi ñëpp nekkuñu biir Daara Muxti kon Darou Mousty ak li ko wër ñëpp ñu ngi fii teew tey kon ñu di ko ñaanal lii nga xam ne loolu ci jublu di ko ñaanal nii muy fukkeelu atuñu bu am na rajo bii yàlla naa ko def ay fukki fukki at te ñun ñii ñu dund ñëwee ba def ko ay fukki fukki fukki at ndax tubaarkàlla macha allah suñu directeur bi teg nañ ci yoon wi. ndax nit ku baax la nitu diine la bañ na ko ba def ne Nasrullah FM te yaakaar naa ne bu ko weer neexoon tuddee wu neen tur ngir bi am lu mu cee bëgg waaye def ni rek kàddu kàddu yàlla gi. kon tubaarkàlla macha allah moom it ñu ni dañ koy ñaanal gay yal na yàlla yokk sa fan barke liggéey bi ba yow tam fi nga bëgg a diriger sa rajo sunu rajo bii muy sunu FM na Nasrullah FM ñu egg ak fa foom wax dëgg yàlla dama ci mënoon bañ a sànni baat ay kàddu rek waaye foog ma sànni ci kàddu ndax foog ma daaw de nag wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ak personnel rajoom ak ki nga xam ne mooy monsieur le maire mi recevoir fii ci biirom kon jërë ngeen jëf. sëñ Abdourahmane dëkk bi. Eh, maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ñaan yal na fan yu gudd te ndax li muy jëriñ diine yàlla ji vraiment ñëpp xam nañ ko ndax ñun suñu Nasrullah FM bële eh, saa yu eh, trois heures jotee sëñ Abdourahmane Mbacké la ñuy déglu moom la ñuy déglu ay waxtaanam ñu di ko teg ñu di ko jëriñoo ñu bari di ci gën a jàngaat seen diine loolu laa ni woon dinaa ko ci yokkaat yal na yàlla guddal fanam. njig euh, njiglaayu jullit ñi la yal na yàgg Mbàkke ñu ngi koy siyaar ginnaaw bi ñuy yendoo jàngal Alxuraan ak xasida bi ñu demee ba ci ngoon gi nag mboolem personnel Daaru Muxti FM yépp ak kilifa yi àndandoo nañu teew ci mbaar mi nekk ci buntu bayti amal fa benn waxtaan wu am solo waaye itam joxe nañ fa ay lijaas yu am solo ci personnel Daaru Muxti FM yépp loole ci teewaayu kilifa yu wuute monsieur le maire Madiop bi tey mi fi teewaloon mairie bu Daaru Muxti ak mbooleem conseil yi moom itam ñu ngi koy sant waaye ñi nga xam ne itam ñoom la ñu dara jaale woon liggéey bi ñoom ñëpp kenn ku nekk def nga ci sa yitte def ci sa taxawaay def ci sa doole ñoom itam noo ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay waxtaan yi nag sëriñ Gana Messere Maxtaar amal na fa waxtaan sëriñ Mbay gi si li liggéey ak nu borom daarul moxti amal na fa waxtaan waaye di gërëm itam sunu mbokk sunu xarit di El Hadj mbaw moom itam ci taxawaay bi ak mbooleem personnel bi kon ñun ñëpp ñu maase ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ni am na fa